may nuyu nag ñi nga xam ne nekk ci rédaction bi yëpp di leen wax nag def leen attention parce que am na koo xam ne ñu naan ko Marie Christine Mendy dafa ñëwoon di ma jaay si parfum mais ndekete parfum yi boo xoolee euh, euh, utilisation yoo la maanaam daf ko def emballage boo xam ne bi ma ko teppee ba pompe ko saa yi ma ko pompee rek yooyu dañ may daw ndekete du parfum wu yaram parfum pour yoo la mu ma ko jaayee nag euh, quinze mille francs kon ki koy jox parfum bi nag xam ne ne ki xam ne mooy Marie Christine Mendy nekkul fii lu dul jaay ay pompe yoo maa ngi koy ñëw fay xaalisam léegi bari Christine Mende jaaykatu pompe ci biir télé bi di nax naan parfum la danga def pompe yoo la ci wet gi léegi nag <laughs> ku ñuy seeti nekk ci télé bi di trompé rek Christine Ndiago léegi gis ngeen nag bii ki nga xam ne moom mooy président éleveurs yi am na lu ko metti lool nee na nag li ñu dent cheikh bi ñoom seen nag yi dafa taxaw nañ ko bàyyi moom waxal boppam Ah, man la Njooba Sow maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant affaire u Cheikh bii moo tax ma ñëw bii ñu ko dentee ba léegi daal ñun ñii nga xam ne ñooy jaay nag yi diggante Lumpul Pël Daara Jolof ak Linguère billaay suñu nag yaa ngi nii tëdd kenn ñëwul taxaw wakaale ko cant yii nga xam ne moo la doon def samedi bu nekk ci Mermoz ak fii nga xam ne mooy kër Samba Law bi ci mbuur bii billaay boobu léegi ñu ngi toog di kaar nag demul nag dikkul lii persement la ñuy wax nag ñu gaaw lijjanti ko affaire am ñu kam fan lay parce que tamit ñu toog fii rek suñu nag yi toog fii te seeg bi moo ko doon jënd di ko teralee taalibeem yii ñu ciy teral suñu poos ñuy sant yàlla boobu léegi nag nag yi ci boppam sax ñu ngi commencé rag ndax tawaktul eh, ba léegi ñag bi génnagul ñu ngi commencé sow ñun ñii kam na ñoo sant sow ñoo sant ba ñooy jaakatu nag yi nekk diggante lumpul pël daara jolof lingeer barkeej ji wallaay ñun sonn nañ ñu ngi wax ak ministre de la justice bii mu lijjanti affaire seeg bi nu mu gën a gaawee mu bàyyi ko ngir ñun ñu mën a dund dund gu nekk ndax seeg bi daawul wakaale danaan ñaata ñu ne ko téeméeri naga ngi nii mu ne ñaata ñu wax ko mu ko beti fay ñu nekk suñu noos yaataa yimbe eh, mu yëg ci ñun léegi nag pour ñu jaay benn nag sax pour cant fi eh, duñ ko am boo jaayee nag rek eh, eh, jàng moo am war a koo xam ne dafay teeral boppam moo kam waaye koo xam ne ajuma bu nekk mu jënd téeméeri nag jëm kaw war a ñaar téeméeri nag jëm kaw boobu ko nekkee ci kaso ba tey amul kenn ku takaw nañu nag ñaat loolu dañ ko war a lijjanti war a nag dinañ def histoire de grève de faim parce que nag yi bu ko Macky Sall jëndul Cheikh bi moo ko doon jënd nañu ko jéem a jàppale ñu jéem ko bàyyi daal nu mu gën a gaawee ñu dugg suñu affaire noosu kaalis ndax ta korite ba koor gaa ngi ñëw te billaay lii bu continuer nii du bàcc ñun ñu ngi waag nag ñun waa lumpul pël waa daar jolof waa linguère eɗen bandiraɓe sehlaɓe mbiɗa haala noon jukkorel jaabirel e dafa ñafade tamede kewo jingoɗo kewo yiiti biɓe ala aissata e guelleje mbaɗe e humu ko kaaɗi seek biɗi wonno ko jarama ko seek inchallah rabi ko woni kono ñeno ko naggi wona ko daaro jolof kon pulɗeno kon puɗɗeno kon pot dinañ ko jàppale bu soobee yàlla ci zaari ak ci baati ndax lii nga xam ne bi moo ko yee doon def te amul kenn koo xam ne takka nga fii pour wax ne seen nag yi ñaata loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg billaay te ñu ngi ànd ak moom ak tey ak ëllëg ndax boobu léegi kenn takkawul nañu nag ñaata seet bi moo gaawoon ci ñun mooy jënd nag ba wis la muy màggal muy gàmm muy lépp lu am rek seet bi takkaw na léegi suñu nag yaa ngi nii takkaw yu jigéen ñi fi nekkoon bi seet bi ci lëndëm lëndëm ba tey noonu eh, nag yaa ngi wasin nag yaa ngi am doom kenn jëndu leen lii mooy lan c'est la peine yaanaa maar laa wax comme ça c'est tout le monde le pays de de Daara Jolof et de Linguère accepté la nag pour le comportement de noce et de et de comme ça de de comme pas la peine c'est pas comme ça rapidement si ne libère pas le chèque on va laisser tous les nacs entrer dans Dakar et si les nacs entrent dans Dakar il fait le gaspillage de jardin public bu ñu bàyyiwul suñu seec bi dinañu bàyyi nag yëpp ñu dugg Dakar affaire mbalit bi ngeen wax nag yi dinañ fa def ay nefere yoo xam ne boo leen fa rombee doo leen dina ñu bàyyi nag yëpp ñu ñëw daara ñëw Dakar qu'est-ce que ça veut dire ça onon bandiraɓe sehilaɓe mbiɗo haali noon jukkorel jaɓorel onon kon daafa ñafade tamede kewo jingo ko keero yiicire bola nekega wo nagbi sanga laaj ko ñoom ñëpp mer nañu kam nañu ñoom chef bi sax bu joxee ndigal ñoom dañuy deewaay kam nañu ne nii leen lii mooy lan dafa yàgg torop waay nañu lijjanti affaire u chef bi ñun ñu kam fu ñuy feete ndax ñun dee nañu sonn nañu chef bi rek moo ñu mën a dimbali billaay chef bi moo ñu mën a dimbali moom du wakaale billaay kooku mooy ndaamaan kii mooy ndaamaan ay chef gaawal génn ñun kaw nañu dee yo e eh, bandiraa wakala gi mbee ko foddi ana wojji maan foddi gis nga ko ana wor kii kana ko mermoos gis nga boo leen gisee ay nag taxaw place lenn place ngeen dàkk ba sonn demul kam ngeen na ñun la bandiraaɓe woccima julliɗi kon woɗ ko foora kan muñal rek léegi seeg bi génn bu soobee yàlla bu seeg bi génnee nag boobu dina neeg ay ba ñu def cant bi seeg bi génn na wallahi boobu dina neeg waaye ko génne daal onon bandiraaɓe sehlaaɓe mbiɗa haala noon e sata gelleje ko kaaɗi mo jakkudaama wonko seeg bi parce que Seeg Béthio parce que Seeg Béthio ay ndaanaan gaawal waaye ñi di bëgg a dee ay yàlla dee nañu